nga toll ci li nga xam ne ni mooy quart de finale yi Serigne Ndiaye 2 Dourou Sané demi-finale quart de finale poids lourd ngir Serigne Ndiaye 2 mu ngi daan Ada lamba jàngoro waa Dourou looy def nii poids lourd Doudou Sané Serigne Ndiaye 2 hey poids lourd la waaye it grand combat la Serigne tànk ba bañ na Doudou Sané Serigne Ndiaye 2 ñu ngi ca géew moo ngeem moo ngeemu Dër Ndiaye déedéet vert vert la def waaye kii vert bu bu kii vert bu lëndëm ma nga noonu mooy noonu nag combat bi nag ku daanu rek da ngay daal di ñibbi daal di yóbbaale li nga xam ne mooy 32500 mooy doon sa remise kuy naan de finale 32000 ngay yóbbu poids ñu daan quart de finale 12500 ngay yóbbu ma nga noonu Serigne Ndiaye de Dourou Sané ma noonu nag arbitre woowaat na leen gi daal di sifflé ne dem leen ba mu jeex 4 millions de faru teg du ay foo Dourou Sané Serigne Ndiaye de ñu ngay damante baaraam kenn bëggul ñàkk foofu góor la waaye ku daan rus ku daan rus waaw waaw Doudou Sané Tony Ndiaye numéro 2 ma ne fàttali ba léegi rek Franc daan nag nga xam ni mooy ngoor Franc moom génn na ci moom moo taxaw fee di xaar ne ku daan rek ma daal lay jël Ndiaye de Doudou Sané ku nekk fi nga war jaar sa morom daal di koy daan ñibbi waaye du yomb ñaari luur lañu seen doole xaw a tolloo nag. Boy ñibbi na daaw Boy Faye ñibbi na daaw Sën Ndiaye de ren moo ko delloo ne ko dama ñibbi Doudou Sané Doudou Sané ngi tante waaye demul Doudou Sané nengeñ na ko na ko nengeñante nañ ay muñ leen lu wax sant <laughs> na ko Doudou Sané na ko wéyal na ko wéyal na ko mu ngi koy wër Doudou Sané Serigne Ndiaye Serigne Ndiaye daan na Doudou Sané Serigne Ndiaye daan na Doudou Sané doo doxul nga jël sa 32 500 daal dem ñibbi ba beneen yoon waaw ku daan jël sa licence Serigne Ndiaye 2 daan na Doudou Sané ñu ne ko doo doxul jàmm maa la mën daan naa la demal ñibbi ma nga noonu nag bi sifflé na diggante Serigne Ndiaye ak Franc Serigne Ndiaye de nee naa leen ba moo ngeen moo lu verte li Franc doomu parcelle boobu moo ngeen moo ngeen lu ñuul li Serigne Ndiaye de moo la woon ginnaaw Franc moo la am ci wet gi. 22h37 le 27 mars <laughs> Fallou Ndiaye woote arène nationale teg fa 4 millions ñu ngay leewtoo cay leewtoo Serigne Ndiaye de. franc ña ngay leewtoo ña ngay damante baaraam Serigne Ndiaye ak franc Serigne Ndiaye 2 moo daan Boy daan Ada daan Dourou Sané quel parcours di jàkkaarloo nag nga xam ne Franc moo daan góor léegi nii huitième de finale moom ñibbi na ñu ngay demante baaraam Serigne Ndiaye 2 ak Franc ku daan dem final ku daan yóbbu million ku daan tey sa kër neex <laughs> waaye ku daanu ñibbi Serigne Ndiaye 2 Doudou Sané rayon ba ma dee Franc duru daan nañ ñibbi Serigne Ndiaye ko daan Serigne Ndiaye 2 moo ñu woon ginnaaw Serigne Ndiaye 2 yaa ngi fa jël sa Fran Fran mu ngi jéem a waaye demul Serigne Ndiaye daa diis du mbër mu ndaw Franc jàll ci yi Franc Franc war nomba Franc war na nomba Serigne Ndiaye génnaat na ci ci lutte simple lamb pure et am na ngemb Franc daan na Franc daan na Serigne Ndiaye ba yëngu na Franc daan na Serigne Ndiaye doo Franc daan na Serigne Ndiaye bi stade bi yëngu na la ilaha illallah ay mbay ay mbay c'est bon yéeg na ci capaan ndaw ga léegi lu waaye doon jaay tey daal day daal lambo Fallou Ndiaye moo teg 4 millions daal di ko jagleel CNG même waaye ku mën a diggante 3 millions. waaw si woon si woon production mooy woon ay 3 am. dana ci laaj ak ministre Bamba Gandiaye mu tegal mbëri 500000 animation day Fatou Adama Diagne Maodo Faye. le départ le départ donc production mooy woon dana ci ay xol sedd na ko mais danoo daan suñu bër nag. non Franc du bër Franc moom. mooy la ah? bër man te xam tey sonto ah. laay bëgg tey saa mënuma lii Franc moom. ah. trop trop vraiment kontaan nañ man bi ma déggee ne ma pat am na fii sax damaa bëgg quoi billaahi damaa wàcc rek daw ñëw kontaan naa trop trop trop trop fajal quoi <laughs> ma nga noonu naa arène nationale lañ ñëwoon indi leen nga xam ne nii mooy lutte simple lutte sans frappe moo ko taxawala ah, na teg li nga xam ne mooy mise u 4 millions ki nga xam ne mooy franc moo ko jël daal ki nga xam ne nii mooy tas yaakaar franc tas yaakaar tas yaakaar mu ngi noonu kon dañuy def rek daal di ñibbi ba ëllëg ko indil kontaan naa la bu baax Bilal bég naa ci yow lu bëree bëri bëri bëri amal sama am nga sama mbégte daal Kébé <laughs> sant naa la gërëm naa sama monteur bu ñaawul boobu dañ jox di daje ëllëg incha allah ci Leewtoo TV.